moom indi na ñaari yoon xaalis këram di indi lekk wuti nañu ñaanal dooro xam ngeen kalaara lu mu def bi ko dooro woowee pour mu ñëw ñu waxtaan ci kër yi nga xam ne turi kalaara la ci Doro def Clara bi muy wuy ji jëkkëram bi nekk ci jafe-jafe avocat la àndal billaahi wallaahi tallaahi avocat la àndal ci sa jëkkër ju ñu jàpp ci yoon oh. moo tax jabar des koy tànn de amaguma jabar man amaguma Clara pour mu dem ci jëkkëram ji ñu jàpp avocat la àndal bi mu toogee mu ne communauté de biens la ñu def kër gi cent cinquante millions soixante quinze millions la ko mën a jox moom kër gi moom te jëkkëram mi ngi ciy jafe-jafe Clara du aawa Doro Gueye du aawam de aawa Doro Gueye Mauritanie la ko takkee Khadija la tudd Khadija Ba mooy aawa Doro Gueye Clara bi mu duggee ci laay fi dooro ci la dooro yàqule ci la Doro bàyyi ay mbokkam tàqalikook ay mbokkam te dafa jënd numéro am cent mille francs yéen xam ngeen Clara Avadoro ak avec d'or man moom su ma wax moom de journal la da ngeen koy gis nii Clara Avadoro ak après d'or du benn xam ngeen ko bi mu duggee ci laay fam Doro moo ko yóbbu ci alaaji Abdul Aziz si al ibnu Junior mu tuubal ko njagandour mi domi Clara bi Clara daf na njaga moko jur yaay njaga bagn mbokka bagn dom joju jooju Doro Gueye jox ko turam ben dom bu jigen la ñom dom ji batay amul bay santi Doro len ko jox njaga la ci tumal njaga bagn moom la wala du moom ñom ñaar ñokoy koy door a takk Clara légaliser doom ji santale ko Guèye yar ko ci biir këram yar bu rafet ba pare boole ko ci ay biyam kooku day donn doora bu doora deewoon tey Clara liggéey doora ba mënta gis mu signaloo ko ne benn jabar nga am te ñaareel nga ba pare ëlbëte ko yemut ci dëddale xadijatu ba ak dooro dooro a xëy ren da koy fase lu ñu la def mu ne dar yaayam na ko bàyyee ko jabar jooju dooro def noonu biñ jàppee dooro dafa vidé comptam quarante millions lépp pour dooro génn bi quarante millions yi ñëwee Clara ngi toog dooro ne jël leen cinq millions yi jox ko rakki ay dara mu téye ci boppam suma jabar la rek Clara tàkk di yak ay bal non la kalara fekke doro ci bir kasso gi diko jeukeram man lima xamone ci senegal te yeen ñep ngeen xam ko moy jeuker ju nek ci jefe jefe sa or du ko fekke sa otor du ko fekke sa keur du ko fekke bam genn ci jamm waaye sa jëkkër nekk si jafe-jafe nga nekk ci ay fesman ci snap bi di def yëfi doomadaam imbécile lu kenn xamut sa jëkkër nekk ci jafe-jafe te mu leer la ne yow yaa ooc dooro ba mu ñëw parce que da nga bëgg ne yow da nga koy bàyyi bu ko rakki jëriñoo pour sa naqar ak sa yow parce que daf sa jëkkër dafa naqari di wër dëkk bi ne moo la jaxaseeg sénégalais c'est pas vrai gëno saf xalé yi gëno leen rafet dàqoo leen te da nga fekkon doro am jabar jigen ju bax bu sey sey si kër day jël awam jox ko cër bu ko mëne bu ko mënul bàyyi ko boppam mais dangaa ñëw ko ben jabar te xam nga ne am na aawam plan ben bi gëna ban yow nga bëgg nit ki nga fekk ko mu am awam yaay en fait bat fi ja dooro ci kasso ni kër ra bo fa demé ni fa am amna artiste way kat bu mag bu jigen bu fay dem ñuy naan ak mandi rek fami bi kenn tubu mom mo tub mandi baax na ci ñom du problème amu ci problème waye dama kala ra yow nga xam lu leer né sa der munta rafet ci yoon bi nga jaar ku la ko digal dafa joom mënon nga muñ tay rafetal ba mu bax nga fexé ba doora genn nga ñaan ba dem sa yoon mais ni nga ko bëgg défé ñaaw na ci netali te du rafet ba àdduna tukki te Doro Gaye mii billaahi wallaahi tallaahi ni ngeen foogee ne noonu lay yàggee ci kaso du ko yàggee ci kaso ndax waxuma dafa jub waaye too yu bari dafa nekk ci ron ak ay loxo li ci njëkk mooy ñaari société yu am problème la lu ci yoon yooni mandat dépôt turi dooro nekkul ci chèque tribunal de commerce leen ko war a regle ñu jàpp tëj ci kaso bi yow nga xam ne tëdd nga ci alalam am na ci loo tëdd ñu woo la pour nga wuyu sa jëkkër nga ànd ak avoca alalu àdduna képp la ñor waaye du bakkani dooro ak fu mu nekk nga ne yow sa àq moo ko daal moo tax mu nekk kaso kon yow bis bu la àqi dooro jàppee ci jigéen ñi nga doon sànni kort ñu ko nopp mu nopp leen ci ñi nga tëj seen wërsëg ci jabaram ji nga toroxal ba jëkkëram mënul koo xool ci gàcce gi nga ko teg ak lan moo wooj doora parce que dafa doora den ko convoqué woon mu négocier génn dem France pour régler lépp ba fay doora ñëw lan moo ko oot ba mu ñëw du sagoom parce que japp nga ne lu bari nga xam lu bari moo xew su doora duggee dootul génn ndax nguur gi dañu soxor nga def ji ko jàmm mais fi nga ko defee moo baaxul ndax nit ñi am nañ gët te sénégalais lu mu bon bon bu ñu la tooñee mu sotle la xanaa da nga foog ne nit ñi xamuñoon ne Ousmane Sonko yenn yu bëri day fen xam neen ko mais tooñee tax ñu bàyyi fen da nga foog ne nit ñi xamuñoon ne Ousmane Sonko lii mu yor c'est pas normal du dëgg xam neen ko mais dañ koy muñal parce que liñ koy tooñee ëpp da nga fa nit ñi xamuñ ne Doro Gueye def na def na waaye léegi ñépp ko yërëm parce que jabaram yow ni nga ko defee moo tax raki amul sago mata mu xeyna ko papa dama la namuti ba manki et daf ko manki mata suma lay fi ñeeki ma ne xam na ne raki jabar la mu ngi ak mom lu neex fiire sa jëkkër jigen ji ko wara def deglu lu bax li jigen wax dama ne jigen ji wara a fiire jëkkëram moy ko tankam waye di ubbi fiire warul ben jigen jigen la wax waxuma kalaara dama ne jigen bii fiire jëkkëram ba mu jaral ko dee mooy ci képp taata mi nga xam ne kenn du ko laal ku mooy jëkkëram waaye alalu mbooloo warta fiire jëkkëram loolu nag jigéen rek laa wax waxuma Clara waaye dama ne ay dara pour man li la war rek nga def mais danga ko yéex a def assumer sa ak Doro fi ko défé amul xorom ndax fekk na nit ñi Menek ko ba dëgg feñ mais nak fi nga assumer code bu baax la wa fi nga assumer baye nga nit ñi nga naan MG ak lu ne xam nga wiri wiri nit ñi ba nit ñi yéex ba Clara di génn bay boppam ba rumeur bi ñëw nga ñëw na ko Timba manque fofu da nga xolu sénégalais tu as bien communiqué. parce que sénégalais yi sénégalais bëggul kuy toroxal doomu aadama léegi nag xam nga lu ci des comme assumé nga yow it yemoo toogoo rakki yemoo toogoo comme assumé nga nag fermé miir yi dañuy nettali say audio contrôlé say appel contrôlé liggéeyil wàcc toog sa kër xam ne sa jëkkër dafa nekk ci nattu boo ko assumé wutoon du ma la conseillé xamoon nga ne jabaram nga xamoon naa ne jabaram nga su ma yoon nekku ci mais comme yaa ñëw ci penc mi assumé nag il faut fermer la porte pour tout le monde néew ma da ngay ubbi dama lay digal contrôler say audio ak say wax wa tainu bi sabri wa salati, di dimbane ko julli ak muñ sa yo xey setti sa jëkkër toggal lu bu bëgg waxal ak moom ci téléphone mi nekkal ci moom lii laa lay digal kat waaye jàpp ne takk suuf nga ba doo ko yëg bi ngeen di def seen takk nit ñëpp yëg neen ko àdduna ndànk-ndànk dafay dem ba lépp siw te Sénégal loo bañ ñu nettali la ko bul ko def dina la ko nettali ni mu amee ba yokkal la ci nag ngay wër di weddi te doo xam foo koy wax lii conseil la ci nit koo xam ne dafa yërëm sa jëkkër man duma xaritu Doro duma sympathisant Doro duma ci ñu koy topp man topp ma Doro man amadu Ba topp Lat Diop Amadou Sall Macky Sall ñii laay topp topp ma kenn ndax eh, ñii rek lay topp mais nag dama koy yërëm parce que soi-disant influence bi mënuñoo communiquer lu ko dimbali waaw li ma ci def nii sax ci communication ñoom mënuñ ko parce que xamuñu wax mënuñoo wax dañ ñëw rek jaxase kaas eh, Clara déglu ma bu baax sa yaay na ma déglu bu baax say mbokk neen ma déglu bu baax yoon bi nga jaar da ngay perte. dinga dem ba doo tekki dara ci kanamu sénégalais dinga dem ba doo amati valeur di nga dem ba doo tekkeeti dara soo ko gëmee ak soo ko gëmut man maay wax ak yow xam naa sénégalais xam naa li xew xam naa sa yéene xam naa yoon bi nga jaar foofu baaxul gis nga nit booy def ak sénégalais da ngay def nanditement gisuloo mama vulgaire lim def Mbathio Ndiaye Mbathio di jaay yéreem sol yéreem sol veram sol sagam mama wax ak mbaccio teylu mbaccio bamu dugg avion mu leer ko ne jëm na italy mama vilger pib poste mbaccio ne client satisfait mako ko jaay muy jaayee 15000 di jaayee plus de 50000 mama vilger moko tay moko togn ndax tooñ da fay tax client mbaccio di saaga mbaccio japp ne daf len nax loolu yaangi jaay ci kaw mbaccio mbaccio bi mu moom au lieu que mu am xel calme dal régler ko danditement mu bousculer mama vulgaire di ko saagaaka xas ba nit ñi indil ko xasteen yu yàgg yi mbàcco mujj toññar bi ñàkk xel moo ko dal mais moom leen tooñ te mama vulgaire li mu def moo ko natt ba mu baax mu tooñ ko mbàcco star la vi moy mooy jaay saak mooy jaay lim sol mooy jaay moom muy jaay copier ku ne am nga droit jaay lu la neex mu poste mbàcco ne client satisfait les clients mbàccoo dañuy daw dem ci moom jëndee ko 15000 au lieu de 50000 loolu sàcc la bu ci yóbboon tribunal da koy fay ko tey waaye nag ni réagir moo tax sénégalais faral Maman Vulgaire ndax sénégalais naa fekk la moom seetul dëgg lu sentimental la seet. léegi nag Maman Vulgaire génn na ko maala tooñ maa ngi nangu baal ma ci kaw ba pare di ko ruux ci ron mbàccoo di fittarndiku lu rëy bi wax ay bal ci bi ñëpp capturé ko ne dafa soof. sénégalais dafa am dundé ak mom Clara mën nga tass xaliss bi mën nga ko jël li ngay carte mën nga ko gagné te kenn dula la may wax ak yow man nan té do suma xarit awma sa numéro suma ko man wax ak yow mais xamna wax ding ko dégg